un giga un giga mu ngi si wàccaay yi un giga nuyu naa la un giga nuyu naa la waaw un giga combat bi Sénégal la ñuy xaar tey bi mooy ah lu tax déedéet déedéet bi bi mënul nekk sa premier combat un giga ku kanam nga ci xam dara noo noo bëgg daanee sa adversaire sa taay bi du handicap ah Safin looy wax si 1 giga ah. yaa mais li ñu koy takkal nii nu mu tudd li ñu koy takkal nii ah. waaw. dëgg la mais li nga yor nii lan la ay mbir Safin banaana bi lan la. non kii 1 giga xam nañu ko baax. ah kii amul ku mu daan ci laamu ci. dëgg la 1 giga ngoog 1 giga génn na 1 giga génn na 1 giga génn na oh 1 giga génn na. un giga génn na allahu akbar un giga génn na un giga génn na un giga génn na un giga génn na un giga génn na un giga génn na un giga génn na un giga looy wax yaa ngi dugg de un giga looy wax un giga génn na un giga génn na Mais le, le, le, grand arbitre, le grand arbitre, le grand arbitre ziar naa la. ana Gris Bordeaux. ana sa copain Gris Bordeaux. mais kay waa làmb ñoo la namm mais babakar waaw Babacar wax ñu tuuti sa carrière ñaata combat nga arbitré grand oh, combat. oh mais moi j'ai fait plus de 200 grands combats. 200. plus de plus. plus. plus de 200 grands combats. ban grand combat boo boo ngay gën a fàttaliku. ban grand combat moom laa gën a fàttaliku. waaw. Manga Tyson. Manga Tyson. waaw lu tax loolu. Ah? lu tax loolu. enjeu enjeu amoon quoi. enjeu amoon. enjeu bi si amoon euh, amoon. waaw. loolu moo taxoon ah, loolu moo taxoon. waaw bu koy bëre ñaata at nga amoon bu koy arbitré ñaata at nga amoon. waaw bu euh, j'avais presque euh, ay 22 ans. 22 ans. waaw ndeysaan. mais mais Gris Bordeaux toujours da lay contesté lan la lan la sa diggante Gris Bordeaux contesté wu ma. waaw. en fait contesté contesté wu ma. waaw parce que c' est pas possible dans la lutte. waaw on récuse un arbitre. waaw voilà donc euh, peut-être. Ah. waxam la woon. jamono yooyu. waaw léegi sa gaañ la quoi. a jamais eu de problème. dëgg la léegi sa gaañ la. non mais musul nekk sama ennemi sax. dëgg la dëgg la ah. parce que man j'ai pas d'ennemi dans mu ngi dox. arbitrage. waaw mu ngi dox. erreur yi wàññeeku na. bon erreur moom. ah c'est la vie humaine baar.

non non non non. man ah. mosuma sentir gàllaaj jàpp na ma. gàllaaj mosu laa jàpp. non non non. ah. da ngay defar balaa ngaa ñëw. non damay wàkkilu si yàlla. wàkkilu si yàlla. donc ci mooy Babacar nee na arbitré na plus de 200 grands combats ci carrière am. ban année nga njëkk arbitré. bon man euh, maa ngi commencé attiré en 96 en 96. 96 mais temps yii gisuñu la si suuf xanaa léegi boos nga. non léegi je supervise. Euh, ah waaw donc mën nañu dégg commission bi quoi. ah d' accord d' accord jërëjëf euh, Babacar. merci kontaan nañu jërëjëf. Ah, merci merci mon frère. merci jërëjëf. Babacar Ngom moo ngi noonu di dellu. waaw waa Sénégal andi naa leen client bu rëy bi mooy 1 giga 1 laa wër ba sot. waaw maa ngi nii nekk ci nekk élément borom saam gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant samay ñaari waajur di sant si Moustapha Mbacke imam borom saam di sant si Cheikh Mbacke di yàlla tey nag sama doomu ndey moo xewle muy Liss Ndiago kon nu ma mën a def damay ñëw rek mel na ni man maay bëre rek waaw di la bëggee bu baax a baax a baax. un giga un un Giga daal si gàttal. waaw ñu bari taay moo yaakaar moo tax ñu tuddee ma un Giga. mais un Giga ci bopp bi kele. kele bu ma daan bëree tey. waaw suba du ma daanee beneen. doo ko daanee beneen waaw. maa ngi sama trois combats. trois combats. waaw deux victoires deux victoires waaw. benn laa mujjee maa mujjee daan dal bonde. waaw dama koo yër. ma man maay samay 16 ans 16 ans. maay samay 16 ans waaw. 16 nga ñëw oh, non xamu ma ko sax li ma leen waxoon comme liggéey rek xamul dara xale la. waaw amaan nañu waa nañu àdduna jàppale daal gannaaw li ñuy def nit ñi ñu ngi gis seen bopp ñuy kontaan gannaaw nañu jàppale rek loolu rek la ñuy wax pare naa tamit bu ñu def émission ma yaata loolu bari ndax li duusi nag bi xajul ci li waaw incha allah lépp damaa mën a bëre damaa dama lépp daal dañu koo boole te xam nga jaamu gën tamit lépp la ñuy mën am ay garant yu mel ne Fodou ñoom Baare nekk équipe ba ko saw waaw nekk ak samay garant ñoom Talla Thiam ñoom Bawel Demba Thiam waaw samay booy ñoom Cheikh Omar ñoom Zé kon lu ma a def damaa war a pare booy làmb da ngay daj te dama kaa dee. mais mais sa taay bi nii xam nañ. gars xam nañ Alaaji Mbaye laa doon laaj. bayu jox ma Ketchup Boucher. dama wone sa bop sama bopp. Boucher nga bëgg. Boucher. barki mam Cheikh mbay barki mam Cheikh mbay barki mam Cheikh mbay mo gën bu ko beugé mo beurel ko. laa wax poussé mi ratatani ci làmb ji mi jël dix ans billaay maa ko mën wallaay maa ko mën makan mbeng laa bëgg mu jàppale ko doomu ñaamur ñaamur lañ yow dëkk ba Louga makan mi ngi dëkk sañ ba noor ma dëkk sañ ba sud kon xam nga di nuyu benn chauffeur bu baax tamit waaw di bëgg àdduna daal bare naa daal pour buuse non des fois rarement rek jaamu gën a rarement

bulldozer borom may ko sama sama fils incha allah di nuyu waa jàmm lebih man ñii ñoo di ñaanal sama doom ndey si laa yàlla may ko ndam waaw di wax nag man maa gën namu làmb ndax waruma toog un an bëreew ma le 12 bi ñuy ba ñuy waajal dëbës ji laa bëre ba dëbës ji di waaye ñëwaat waaw ñi dox na suñu combat ñu bal tamba di nuyu bu baax bëgg bari nañ mais bëgg ndax dëkk man maa pour ñep bu keneen ñewé ci digënté bi tamit mooy loolu waaw di wax autorité yi nañu jabalé ndax dañuy nekk ay ndaw yo xamné ne ñu ngi ay mbolo yu bari barki maam la Fall xam nga rek amana suñu loxo jotul suñu ginaaw lepp ngir bëgg a dimbali suñu yaay rek ñu ko ci lamb waaw loolu yalla may def xam nga xal mom ni ko xép mu lakk sa naay waaw loolu olof jaay ko wax man lépp laa mën damay mbot damay lalle damay cabaxal damay bët damay avion waaw damay bëre avion di naaw sama ko mooy waaw loolu sama combat ma nag Baye Gora bu ko gars yi seetaanee dinañ bu baax baax waaw wax waa Louga nañ ma jàppale damay doomu ñaambur nekk sama taaw yaay waaw bëgg ñoom Makan mee jàpp ci bu baax ay ñoom Papa Ceebu Louga waa Corosement waa arrêté Sëñ Xaadim waaw bëgg gars yi jàpp bu baax a baax a baax waa kër Maam Cheikh Mbaye waaw ah, amul sax kel waay ah, amul sax kel barki yàlla billaay wallaay barki alxuraanu karim musuma kaa xam billaay wallaay wa taala man xale laa samay 15 ans dama teel a ci làmb rek amaana dañoo ëppal rek yàlla moo ñu ko jagleel waaw parce que dama kaa bëggagul waaw bëgg naa li bëri defal seen yaay ma defal ko yaay ba pare doo ko xool keneen ku may bi ah! dañuy ñëw jooni jooni baa ñu wéef baa ñu wéef wéef waaw damaa bëgg wéef sargal ma jooni jooni wala wéef laa koy doxalee bëgg naa balaa arbitre bee wàccee loxoom sax ma daan la de. dama may sax. waaw kay dama may sax. waaw. waaw incha allah. barki seeri naa ko xamee man lamb man lamb rek laay dugg. laay wallaay. ay eh, ñu ñu ñu ñu di bëri yow sax si say bët lan. barki seeri ñu baax ma. dëgg la mais arbitre si nga yow. dama lay may xaalis. dama si xamul eh. ñun ñii da ngaa ko daaw ñu rek ñun bëtas. Eh? sa yoonu lamb day leer barke am xuraani day visage geene am nañ jaamu baay waaw jaamu pexem yàlla dogalam amaana fekku li mu ko li ma yaakaaroon fekku mu ko fa ndax waa ji daal niin waa ji dafa niin su ma dawee laal ci la niin ma barasi ko tekkaat ab bi après rek yaa ma gën a xam mais yàlla baax na di wax non xam naa ni ñëpp la naqari xam naa ni ñëpp la naqari di wax daal waaw di ñaan daal gars yi nañu ma jàppale waat rek dañoo manqué jàppale bu baax a baax barke Sëriñ Tuuba non dinañ jàngaat bu baax a baax a baax waaw maa daw di ma soog a daan nii ma laal kanam. am jom am nga jom am nga ma la dama koy topp mu dugg Ablaye. man si amaana amaana dañuy jàngal lu bari rek. waaw yàlla baax na ni la mënoon demee yàlla baax na. jàmm pexeem yàlla dogalam. dañuy ñaan rek nañu àdduna jàppale daal ndax am nañu wàll ci làmb ji. parce que suñu ci waa combat bii nii billahi wa taala dama jaay sama ñetti xar def ko ci. ñetti xar ñetti xaru tabaski te amaguma xaru tabaski. barki maam Cheikh Ibrahima Fall mais nañ kaa nañ kaa jàppale rek bu baax a baax bu ñëwaatee dina demee neneen. incha rabi ah. wallaay daan niin per daan niin waxtaan yëpp karité la bi ma colosé sama loxo mais état boobu mooy loolu lamb la dama daan ñëw di daatu. super. champion non non. man journaliste daal damaa bàyyi làmb moom su ko toog ba mu dugg oto lii lii sax dama koy nuyu. man dama ko faa. Gariba ñëwal nii ñëwal nii. Gariba maa ngi jégalu bu baax di wax Arona maa ngi jégalu bu baax a baax. force nag wala doo taxaw yàlla bu baax. boo daanul doo taxaw kii. dama ci ginnaaw. ngeen mu ngeen tooy. yaay tagal leen ko balaa muy. ndeysaan mu ngi dem sama copain bi. ok géy nañ. ma mbetteel wallaay tey ma am mbetteel non Ziga tey am naa mbetteel dama la di courage mon frère courage doon liggéey rek bonjour ñëwal ni kii dama koy topp oto bi dem ba verre bi kontaan naa non maa la gën a kontaan booy kontaan verre bi lu mu xam naa loolu bëgg naa nag ñu def benn émission bu baax a baax a a maa ngi dëkk jàmm gën si Kambaaw jàmm gën si man ginnaaw raay laa nag booy balaa may jàkkaaroo kenn wax ko si numéro wax ko fii waaw defal 78 rabi a door a jël siège bi wala dem naa ba si oto yi fi mu taxaw door a jël sa biir. yow génn naa ba fii di la seetaat mënu ma laa gis ba jël tabourier den si waat si biir. waaye yéegal jeex na de. yaa ngi départ. jeex yéegal. Cheikh Cheikh mu ñëwal Cheikh yow tamit Cheikh Cheikh boo defee nii man journaliste bi dama war a ma war a tëddee njaaxaanaay faral un giga nu may def ah man ma faral un giga man ni may def nan nan laay def. amul problème gars yi. un giga. un giga. boo dugaatee fii may ma ndam lii. incha allahu a bàyyi lamb ñoo bokk